ginnaaw na yooyu bi encore une fois ci suba gi teel ñu andi am njàngat ci nga xam ni mooy image la yoo xam ni yu rafet yu ngeen bëgg di ko gis ci football image yoo xam ni yu am solo la yoo xam ni sax na sàpp te neex ci wàll gis-gis Kylian Mbappé nga gis ko mu sol li nga xam ni moo nekk numéro bi nga xam ni mooy numéro Achraf Hakimi bu ngeen gisee loolee la muy jëmmal ñun ñaar maa la dal fële ca France di sunum réew France googee nga xam ni ñëw nga fa di footbal ci li nga xam ni moo nekk euh, Paris Saint-Germain te it ànd bii ma ànd ak yow mu nekk ànd bu am solo ànd boobu bu amul sens sax mën na wéy di continuer ci ay jamono yoo xam ni dëgmal nañ ko ndax football mën na lu ne ndax kii di Achraf mi ay mbokkam ak ay famem seeni bëgg-bëgg mooy mu delluwaat fële ca Real Madrid Espagne. gee nga xam ni moom mii di Achraf Hakimi mi la juddoo papaam ak yaayam ak indi jaayam ak ci information yoo xam ni jëlee nañ ko ca journal ya nga xam ni ñoo nekk ca Espagne Marca ñu mën ko caa tudd bëgg-bëgg ñoom mooy mu dellu fële nga xam ne mooy Espagne Mbappé tamit nekk koo xam ni Real Madrid bëgg na ko mu bëgg ko donte dossier bi Paris Saint-Germain prolongé na ko waaye loolu lépp daanaka suñu waxtaanee mën naa dellusiwaat comme ñaar ñaw ñu seenu ànd li ci gën mooy rafetal ko ndax mën naa ànd bu yaatu équipe bii di Maroc nag nekk ñenteelu pays bi nga xam ne moo gën a xarañ ci àdduna wala ngel kàppu fii mu toll tey wuti laneen lu ko gën a am solo sax mooy troisième place bi bu ñu ko jëlee dañuy nekk ñetteelu pays bi nga xam ni moo gën a xarañ ci àdduna bi supporters yi Sénégal yi nag ba tey jii ñu ci bari ñu ngi bëgg allion Cissé li muy ruur naat ci suuf ba tey jii te waxu ci ba tey mu teg ko ci suuf muy bàyyi équipe national Hervé Renard nag mi ngi wax ay kàddu yoo xam ni daanaka citéwul Sénégal waaye xol ba boo ko xaroon équipe bii nga xam ni moo nekk ci ndakaaru njaay jël joob li ko wër moom rek na ca xol ba waaye nag nanu yónni yàgg